Euh, Jules Onyx la mouvement Diourbel Yeewu jot na te élection euh, locale yi nga xamante ni pousse nañ ko ba 2021 mu waroon doon ci 2019 bii nii ñu nekk mu doon élection yoo xam ne ñu ngi ko déroulé woon en kon ren la waroon a mat 5 ans ren si leen waroon a defaat euh, beneen beneen beneen beneen élection bi demee fa noon mais nag bizarrement dafa doon loo xamante ni boo jàngatee si côté gouvernement Macky Sall depuis mu toog nga xool en 2012 les élections se sont bien passées quand même si lu ñu mën a wax. ñu jógee foofu peut-être ñu dugaat ci benn élection ñu ñu ko ñu ko doon wax ay euh, référendum référendum yi ñu ñëpp gis nañ nu mu demee xam nañ ni jaarul jaarul yoon ñu jógeeti foofu dem ci local yi. local ya jaarul yoon ñu jugewaat foofu demaat si si législatif yi législatif yi jaarul yoon ñu jugewaat foofu noonu ba ñëwaat si côté en 2019 si élection présidentielle yi passé en en février ñu gisaat même njuuj njaaj yoo xamante ni wala même euh, benn mal organisation boo xamante ni amoon na si wàllum élection yi nga xamante ni la ñuy kon donc ay question yu ñu posé peut-être lenn la moo doon ba xam gouvernement wu Sénégal moom si jëmi boppam moo mënul nekk en mesure pour organiser ñu des élections dignes de son nom muy lan dafa doon loo xamante ni suñu droit dañ leen fal pour mandat de cinq ans muy lan mairie yi cinq ans lañ leen fal pour ñu pour ñu gérer ko bu ñu paree cinq ans yooyu noonu après ñu demaat élection peut moom mën na toogaat peut-être keneen mën na ñëw toogaat. Serigne Mansour Cissé le correspondant du Soleil ay Diourbel. loolu sax am na ñoo xamante ne ñu ngi société civile bi ak ñenn ci opposants yi ñoom d' accord ñu ci parce que li euh, bëggoon mooy ñu respecter le calendrier républicain mais ministre de l' intérieur Aly jaay waxul ni définitivement la date de l' élection sera maintenue euh, en 2022 mais dañ ne au plus tard donc mën na koo jiitu comme it mën na am ay xadis mooy euh, li gën mooy nañu am consensus des en fait des des des des acteurs politique pour mu bañ ay féewaloo wala muy jur yenn fitna yi daal man loolu daal mooy li nga xamante ne euh, mooy mooy li ma ci li ma ciy wax mais avantage bi nga xamante ne aussi tamit am na ko ci donte nit ñi parfois benn côté rek la ñuy analyser man dama jàpp ne dafa am avantage pour ñenn ñi surtout parti yi nga xamante ne bi ah, ñu ngi soog a juddu amaguñ yenn expérience yi amaguñ yenn moyens yi xam nga dana leen permettre ñu gën a defarawaat tey jii ku mel ni man xam naa ni euh, élection présidentielle yi am na ci ay rëq-rëq yoo xamante ne bii daf koy tirer comme le leçon dina ko permettre mu gën a implanté wu dina ko permettre mu gën a massifié wu ak yeneen parti yi nga xamante ne bii am nañ seen récépissé et que fi mu nii dañu bëgg euh, exiger waat les les les les daasaat seen i armes quoi comme on dit euh, affûter leur leur leurs armes euh, voilà pour aller à la conquête des différentes collectivités locales et territoriales. waaw Abdoulaye Faye correspondant Teranga ne. waaw élection locale yi moom li ñu woon a wax rek moom mooy d'abord y a les acteurs concernés mais itam acteurs yi lu ñu concerné concerné itam waruñ ci génne itam population. benn instant d'accord naa ci pousse bi. beneen instant itam d' accord ma ci poste bi lu ko waral d' accord ma ci poste bi parce que itam bu ñu demee bay pousse waroon nañ mën a jox population ba la ñu moom ñu yelloo ko mooy lan fexe ba nga xam ne suñu maire yi ak conseil départemental ñu def ay délégation spéciale nga xam ne fii ak ñuy dem élection ndax ñi fi nekk fi mu toll nii seen mandat jeex na depuis juin kon cela veut dire que fi mu toll ni ci desal yëpp fi mu toll nii buñ ko tegoon ci yoon. kenn warut cutee nekk maire fi mu toll ni kon beneen équipe bu bees moo fi ne man ci côté boobu man jàpp naa ne d'accord ma ci li tax ma ànd ci mooy lan dañoo toll foo xam ne la fichier bi nga xam mooy fichier électoral bi ñu génnee ci élection présidentielle yi gisoon nañu itam ru mandat yi nga xam ne amoon nañ ci bien vrai que fichier bi baaxul woon à 100 pour cent d'accord ma ci dàq bi nga xam ne dañ koy dàq ci élection locale yi parce que itam souffrance yi nga xam ne moom la population di dund par rapport ak gestion clanique gestion nébuleuse yi nga xam ne tey jii ne suñu suñu municipalité yi ñu ngi koy demee ci biir réew mi ci problème foncier ci wàllu suuf fi mu toll boo demee duggal ci dëkk gox goxaan yi fi nekk rawatina fii di Diourbel amatul benn suuf boo xam ne askan wi dese nañ ko suuf sépp jaay nañ leen suuf sépp partagé nañ leen loolu itam bokk na ci li nga xam ne. man d' accord ma ci pousse bi nga xam ne pousse nañ ko élection yi. waaw euh, je m' appelle euh, Dame Ndiaye euh, je suis de l'APR de Diourbel je suis responsable euh, au niveau de la commune de Diourbel. man d' accord ma woon ñu pousse élection yi ba le 21 mars 2021 parce que li tax loolu mooy que ne élection askan wee ko moom. fekkee ne mënuñu respecter euh, le calendrier républicain nañu ko laaj askan wi ba askan wi déterminé wu par rapport ak report bi mais ay lu mat cinquante personnes soi-disant des acteurs politiques làqatu ci benn néeg toog ca néeg ba daal di décider au détriment de de de quatorze millions de Sénégalais mais y problème dans ce pays la donc loolu moom je suis au euh, je du pouvoir mais je contre ce report là parce que ñii fi nekk tey euh, yor collectivité locale yi que ce soit les mairies que ce soit les les les les les les les, les conseils départementaux askan wee leen fi tegoon te ci biir askan wi askan wi ñooy jugé ba xam ndax doxal nañ wala doxaluñ ci biir askan wi amaat nañ ñeneen ñoo xam ne ñii bëgg nañ place boobu pour toog ci kon bu ñu demee. ba nga xamante ni askan woowu mooy fal euh, mooy fal mooy folli fal ay nit àpp ba jot pour ñu war leen a euh, renouveler wala ñu war leen a remplacer wala war ñu war leen fa bàyyi askan wi war koo décider kon bala ko bala woon benn politicien di décider à la place de de la population waroon nañu. Euh, seet ni ñu koy doxalee ak formule bi ñu koy doxalee te loolu li ko indi mooy mënuñu wax ne euh, nous avons une démocratie parfaite parce que dans une démocratie parfaite am na loo xam ne lii euh, warut warut a am dans une démocratie parfaite parce que Sénégal tey am na problème yu bëri weesu woon nañ ko ay problème mu mandat weesu woon nañ ko ay problème mu calendrier électoral weesu woon nañ ko kon aujourd'hui n'avons pas le droit de faire moins que nos prédécesseurs dañu waroon a respecter le calendrier républicain euh, suñ ko mënul euh, au pire de cas ñu def délégation spéciale euh, maire yi ak conseil départementaux yi ñëpp yem au même pied d'égalité ñu demandoo élection au même pied d'égalité parce que aujourd'hui augmenter le mandat des élus yi fi nekk mooy que ne dootuñu dem à à à à à pied égal ci élection yooyu